merci beaucoup présidente monsieur les ministres monsieur les collaborateurs des ministres maa ngi leen di nuyu di ci ràññee mon jeune frère Tamsir Faye euh, man damay emprunter le pas à sama honorable collègue bi fi jóge léegi Ami Ndiaye monsieur le ministre man j'aimerais bien savoir avant que ñun ñuy ñëw ci nguur gi 2012 ñaata jeune la état doon dugal par an soit dans des projets soit dans la fonction publique ou bien même les statistiques dans le privé parce que quand même politique gu jeunesse su président Macky bu ñu ko naree natt ci ministère bi kese mooy comprendre ñu le président Macky tëgg président Macky li mu tëggal jeunesse c'est transversal amul ministère booy dem te fekkoo fa programme pour des jeunes loolu mooy dëgg nañu bàyyi par parloo bi te di wax dëgg jeunesse Sénégal li ci président Macky am def amul benn président bu ko fi mus a def penser des maisons de la jeunesse penser des pôles emploi mais loolu ku mu doyul loo bëgg c'est pour rassembler les jeunes autour de l'essentiel ñi ñu former ñu ñu utal leen liggéey ñu former wul ñu identifier leen former leen 3 FPT PF2E mais quand même dañu waxante dëgg mun nga bañ a far mais quand lu baax ñu wax ko moo gën lu baax ñu koy xalab sama benn collègue taxaw na fi sànq il a dit plus de mille et quelques milliards moom moo ko calculé du man ne def nañ ko mais gisuñu ko monsieur le ministre foofu dinaa leen xaw a rejoindre tuuti sur la communication yaa ngi liggéey say département ñu ngi liggéey xëy na communication bi fi mu war a jaar moo àggul ba ñun ñi nekk ci hémicycle bi duñ ko ressentir parce que chance su wax devant le peuple ñun ñoo ko am maire yi amuñu ko sa direction amuñu ko mais ñun député yi il faut ngeen boole ñu ci li ngeen di liggéey ñu xam ko bu ñu ñëwee gën ko faram-fàcceel nit ñi ñu xam ko parce que taxaw fii ne président Macky Sall deful dara pour la jeunesse franchement ay waxu ko daanu sareet la ngeen baal